jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñu siiwut ñu ngi leen di nuyu di leen bëggee di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di amaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci seen chaîne leader bi di people 221 nag ñu ngi nii Thiaré Géej euh, dalal ndaanaan koo xam ne kenn dootu ko présenté biir Thiaré Géej mais rawatina ci làmb mu di Père Mbaye Ngoné fas yéene seq ak moom waxtaanu làmb démb ak làmb tey ak làmb biir Thiaré Père dañ lay bàyyi nga nuyu ñu lay siiwut. waa jërëjëf euh, waa people 221 maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di nuyu nag mbokk Sénégal yëpp di nuyu internet yëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre people 221 di leen sant di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi yëpp di ñaan yàlla na fi jàmm am ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadul Khadim di ñaan sama sëriñ ba Cheikh Mouhamadul abi Mbacke ibnu sëñ Abdoulahi borom dër bi rakki sëriñ Cheikh Mbacke le lion de Darou Rahman dellu si nag di ñaanal waa suuf si nga xam ne fi laa taxaw muy caaroy géej di leen ñaanal ñoom ñëpp di leen gërëm di leen sant di ñaanal mbër yi fi nekk yëpp yal na leen yàlla may jàmm ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim yëngu ci làmb ñëpp ak mbër yi nga xam ne jot na noo làqu nga xam ne soo déggee ñu naan làmb ñooñu moo tax deme ni ki ay baay Modou Kane demee ni ay baay Thérèse Ndiir ay góor gi Babacar Gueye ay baay Modou Dieng ñooñu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon démb ak bërki démb ba tax tey nu bàyyi fi produit bii tey nga xam ne muy làmb ñëpp nekk fi composé ko xale yi di bëre di jóge caaro yi di ngemb di dem di dellu si maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di leen ñaanal jàmm bu baax mbër yi nga xam ne ñoom ñoo fi dese combat demee ni ki Ahmed Dem yàlla na ko yàlla may ndam ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim waa ndax moom dopp maa bëgg waa këram bëgg ma ñoom mati ñoom ñëpp seen waa kër bëgg ma lool lool lool lool jox ma ci respecté ma di ñaanal ma Mandione ndax euh, bul fàtte ma nga jëm ca bébé Saloum tamit di ko ñaanal yàlla may ko ndam incha allahu taala ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadul Khadim di ñaanal képp koo xam ne rek yaa ngi yeewoo caaro yàlla na la yàlla may jàmm ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadul Khadim. Euh, nuyoo bi am na solo fi may njëkkee histoire lamb biir caara yi euh, mën nga ci indiwaatal làmbi caaray démb. mën naa la indi làmbi caaray démb bu baax a baax a baax a baax mais damaa dëkkee ci dëkk boo xam ne euh, maanaam xamuñu sport bëgg nañu sport dinañ ko pratiquer mais xamuñu ko dëkk ci dëkk boo xam ne hmm, il confondent analyse et point de vue loolu moo tax duma ci dugg waaw. dafa am ñoo xam ne il confond analyse et point de vue sport day dajale sport day boole sport sa développe l'intelligence mais tey am na noo xam ne su ma ne waxee tey léegi ku nekk ak sa point de vue te man je suis en train d'analyser il confond analyse et point de vue moo tax du ma dugg foofu mag ñi fi nekk ñëpp xam naa leen ku ci nekk mën naa nettali sa ay combat baay Mod Baye Mod Jenn moom la ñuy wax raay sigaar daawul tàggoo ak man ndax su daan dem toolam ci sama place lay jaar góor gi Modou Kan mi nga xam ne moo bëre ak Abdourahmane Ndiaye Falang nettali na ma lu baree bari ndax ci sama place la daan toog mooy loolu nga dégg noonu alaaji kan naan dafa daan jaay ay colistara effectivement wax na dëgg effectivement alaaji kan vous avez parfaitement raison mais vous ne savez pas le but le but de mon travail jaay Colistra. Colistra tey suñu la waxoon ne wax ko en français doo ko wax doo ko wax Alaaji Kan suñu la ne woon il faut définir le mot Colistra et d'où ça vient les Colistra doo ko wax Colistra ça s'appelle la préfabrication en bâtiment des Colistra des agglos, des ourdis, des dalles de protection pour étanchéité, des murs enclins, des poteaux inclinés, des pavés autobloquants, des bordures de jardin comme des bordures de trottoir. loolu xamoo ko c'est mon métier un digne métier un digne métier loolu na ñuy wax préfabriqué moom la waa prébat di def waa Sabé loolu mooy préfabriqué effectivement El Hadj Kane vous avez parfaitement raison loolu la wax nga dëgg. mais nag Baye Modou Kandé daan na ñëw ba sama palaas mu toog fa ba papay Ceembay si mbër la woon daan na ñëw ba sama palaas mu toog fa baay Thérèse Ndiir moom moo fekk mbër mu toog panna neuf kenn daanu ko muy Cheikh Mbaba Saw Cheikh Mbaba Saw nijaay la ci Papa Diop jéeri Boston neuf la toog ginnaawam laalu suuf góor gi teres Ndiir moom moo ko daan góor gi Babacar Gueye un grand champion boo xam ne su paa yi daan dem ba doonu naan Babacar Gueye soo demul du nu dem ndax soo demul sunu demee doon nuy dëkk te mënunoo daan ñëpp ba nu jeex doon lay doxalee kay sunu diggante ak mbër yi ku nara a ñun bëre ak yow te boobu góor gi Babacar Gueye neexul daan ginnaaw bi nag la ñoom Ablaye Diouf Fall ñëw mooy papay ma Mandione ñoom njaati Njaati euh, ñu koy wax papa Ndiaye Njaati ci la ñëw ci ginnaaw bi ñoom papa kan ñëw ñoom Ablaye Kebe ñëw ñoom Sele Dieye ñëw ñoom Ndongo Laay Ndongo Bey ku mënoon a bëre ñëw njagandoo yi moom lañ tuddee njagandoo yi mii. Mhm. njagandoo yi bu caare yi un champion ñëw ñoom Birima Fall ñëw ñoom Serigne Ndogal Maar ñëw ñoom Malle ñëw. mbër yu baree bari ci nañu génnee ba ci ay ndaata Cembarga ay Jacques Dutronc ay Bamba Mar ñoom ñëpp daal di ñëw waaw. mën nga ma ñëwal ci làmbi démb ak làmbi tey. waaw làmbi démb damaa fekkee làmbi démb te ñoom fekkee wuñu làmbi démb ma fekkee làmbi tey ñu fekkee ko ak man damaa fekkee làmbi démb te ñoom fekkee wuñu démb ma fekkee làmbu tey ànd ko ak ñoom gis nga foofu Alaaji Kan di wax naan euh, dama fa daan jaay Colistra effectivement il la raison mais am na ay mbër yoo xam ne Baye Mandione ba mu fay ñëw di ànd ak joos boobu xale bu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw la boobu duggagul arène bëreegul ak kenn mais lu ko jiitu bat leen sikki fa la nekkoon nu koy wax Massayer liiru jaan nu koy wax Bill fa la nekkoon Bourkhane Wade mooy la manager de Boy ñaa mbedd moomu la këram nekkoon boobu man soor doon koy fab xale bu ndaw la man soor mooy doomu Bourkhane Wade Bombardier daf fa daan ñëw ndax Bombardier dina fa ñëw pourquoi parce que yoonam la woon te boobu Max mbargan daf fay fréquenté Alla Gueye di fa fréquenté papay kuli fay numéro 2 mi moom laa bàyyi woon ca place ba su ma dee liggéeyi moom laa fay bàyyi su ma ñëwee moom laa fay fekk ndax su ma ko bàyyee damay de wuti ay chantier mu Ameth Ndaw Tyson ñëw na fa seet si Bill ndax Bill fa la nekkoon liiru jaan ñooñu foofu nan daan daje ci sama place boobu man maa moomoon place boobu maa ko créé góor gu ne wax Baye Yes Ñang Baye Yes ñaŋ Baye Daam Ñang moom moo ko jur moo ma daggaloon foofu Baye Yes Ñang waaw. Mm-hmm. loolu am na solo bu waxee ci làmb nag war na cee wax parce que yàgg naa ngemb mbër euh, si sunu génération mun na gisite ku ci mel ni Baye Mandione euh, xam naa dinaa ñëwaat ci loolu làmb ji amoon keroog dimanche nan nga jàngatee làmb jooju noonu ak coow li nga xam ne amoon na ci diggante arbitre bi. ma Mandione moo mujj ci ñu ma ngemb ci caaro yóbbu leen damaa ngemb isaapu yi maa nga ca cumukaay la yóbbu ko mu daan Balla Gaye ca stadium ba ma ngemb Khadim Ndiaye yóbbu ko mu bëre ak Daawuda Top daan ko bëree ak baay Daawur daan ko boobu ay mbokkam ñoo ko daan yóbbu moom Xaadim Njaay muy Abdou Kanji bu Kanji production ñi ngay dégg Kanji production yi Kanji production yi seen maam mu jigéen mi jur seen yaay Jee Njaay moo Xaadim Njaay ñoo bokk benn papa benn papa Xaadim Njaay jolof jolof la mhm. ma nga dëkk Njaayeen ca Daaru Rahman nu bokk sëriñ sëñ Modou Habib Mbacke ibnu sëñ Abdoulahi borom dër bi rus naa sëñ Modou abib rus naa sëñ arajatara ruus naa sëñ Cheikh Daaru Rahman ruus naa Abdou Kanji ruus naa Kanji production ndax doon maa defal loo xam ne ñoom Kanji production ci këru àdduna mënuma leen a fay bërki démb laa fa jóge seen soxna génn àdduna muy Fatou Mbacke jigal koo xam ne kenn la woon ci man ñooñu laa rus ba pare tamit ruus naa aussi tur wi tur wi ndax tur wu toll ne tur wi nga xam ne moom la tudd ku dee yaag sa tëraay bàmmeel ruus naa ko rus naa lool xaadimu rasul rus naa tur bi rus naa rus naa rus naa euh, mu mel ni dafa am ay kàddu yoo xam ni daf ko jël te ko sa kaw te mu naqari la lool ba mënoo koo tontu ngir tur bi. dara naqariwu ma ci ci kàddu yi mu teg sama kaw dara dara dara naqariwu ma ci dara naqariwu ma ci man faalewu ma xaadim Njaay ba faalewu ma Balla Gaye faalewu ma saa kees faalewu ma booy Niang xanaa su far doon am diggante komba booy Niang ak Balla Gaye wala féete di am booy Niang laa war a féeteel maag Mansour Diop comme dugub ak soow Mansour Diop daawul jóg ca place boobu ba Paala Diop daawul jóg ca place boobu dafa daa ñëw ci man ma fréquenté su far dee am booy Niang laa war a faral surul dara di Abdou Kandji Boy Niang dëkk na kër Abdou Kandji pendant sept ans ñu nekk ci kër gi ca Fadia ci kër Abdou Kandji Kandji production ñii ngay gis nii. te boobu Balla Gaye mi ngi dëkk kër Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye c'est un transitaire da ngay génn ginnaaw da ngay génn kër Abdou Kandji jàkkaarloo ak kër Moussa Ndiaye. su Balla Gaye duggee nga gis su Balla Gaye génnee nga gis te boobu booy Niang ma nga ca kër ga xanaa kon su fardee am booy Niang laa war a faral xanaa su far am booy Niang laa war a féeteel mais ban ma laajee ci kombaa bi jeex leen ci réseaux sociaux yëpp dama leen ne sama ñaari doom nanu sama yoon nekku ci non Xaadim Ndiaye waxuñu dara du man du Xaadim Ndiaye man du man du Xaadim Ndiaye ba Xaadim Ndiaye lu mu teg sama der jëf du ma ko tontu l'essentiel daal fi may dugg ci biir caaru géej suñu mën a tere ma dugg fa nanu ko def man kër Baye Mbër njaay laay dugg Baye Mbër Ndiaye ñooy waa Ndiaye yéen ñi nga xam ne ñoom ñoom moom gaakol soo dee xool gaakol nag soo ko xamul mooy fii LG yi nekk ñoom ñoo ko moom mooy Ndiaye yéen googu moo jur Modou njaay c'est un géomètre ña nga fa ak ñoom sox soxna Diouf Ndiaye di soña mais man su ma fay dem biraan laay àndal biraan laa fa fekk muy sama doom ndax biraan sama doom la biraan bi muy ñëw foofu dégg nga di ñëw ci tool ya foofu sama place bii Alaaji Kan di wax biraan ba mu fay ñëw boobu xale bu ndaw a ndaw la ab boobu am naa doom yu ko mag fuuf kon kooku sama doom la mais terewul dafa laa biir laa biir goo xam ne ak bëgg xar ci biir bëgg xar gi mu yor ay xar yoo xam ne man maa jënd xar yi keroog am na yoo xam ne ba ma koy jënd man maa dem man maa ko jënd man maa ko indi maa Ibra Jaañ moo nu ko jaay doomu xel Xelkom la ko jaay doomu xel kom ba léegi mi ngi fi benn bi mën na ko tuddee Mbay Ngóone moo nekk ci gétt gi actuellement kooku xel Xelkom la ndax ba xar ma ñëwee des laa ko tuddee réseau national des éleveurs du Sénégal maa Ibra Jaañ moom moo ma ko jaay deux millions la ma ko jaayee ma jël xar mi daal di koy indi mais pourtant bi ñuy dellu ci maa Ibra Jaañ man ak Biraan ak rëg ñoo ànd man ak Birane ak rëg-rëg ñoo ànd. rëg ñaata rëg-rëg moo am ci réew mi. man ak Birane ak rëg-rëg ñoo ànd ci maa Ibra Diagne ci géttu maa Ibra Diagne ñoo ànd moom nag waxuma dara de rëg-rëg waxuma dara de déggoo baatam fen mu wax ma dara. déggoo mu wax ma dara danga nga ma naan kay ñi nga xam ne waroon na noo taxaw sànni seen kàddu doonoo ragal. doonoo ragal ndax ku ci mel ne Bamako ragal la ndax Ahmed Dem moo nekk géej mook Baye Mandione numéro 2 di entraîné Bamako ne ma kaay nga participer ci interview bi ndax Ahmed sa doom la ma ne ko ah oui Ahmed sama doom la. mu ne ma Baye Mandione numéro 2 ma ne ko kooku li ma bokk moom moom ma ko ak kenn ma ñëw taxaw nu interview ba ma jeex leen la ma waxoon lépp lépp lépp ci interview boobu. xanaa kon su lii amee banu taxaw di ma wax dara Bamako war naa taxaw daal ne demewul noonu de ba élément yaa ngi nii interview yaa ngi nii demewul noonu de war na ma defaan mais comprendre naa ko dafa ragal dafa ragal waaw waaw ah, seede ma loo wax lu ma wax dégg ko micro ñoom ñaar ñëpp samay doom lañ loolu duma ci wax loolu nga wax waaw de laa wax ay nit ñoo jog taxaw di ma seede ñu jógee ba géejawaay ñii bokk ak guy gi dégg nga ñii bokk ak ñu nekk ñoom ñoo ñëw taxaw di ma se di ma témoigner sama buntu kër. sama buntukar maa ngi ni géej gaa ngi ni jëlal géej gi jëlal géej gi noo xam ne maa ngi ni ci géej gi sama kër nan ma fekk sama buntu kër nanu ma fekk waaw. waa géejawaay yëpp amul kenn ku ma bañ. su ma neexoon damay dem directement dem yor Tapha Tine te su ma demee doon may ubbil doon may yaatal. su ma demee damay yor tafaatin te kenn duma ma iñaane su ma taxawee ak Daawuda saar bu boox ne ko jox ma tafaatin mu jox ma tafaatin te su ma ko joxee mbër dootu ko daan su ma demee ci Bada Jonn ne ko jox ma tafaatin su ma joxee tafaatin su ma ko yoree mbër dootu ko daan ndax damaa fekkee baayam ñi nga tin bëre ñi nga tin bëre ak ku nu yox yeeke ñi nga bëree ca njaarim keroog ba ñi nga tin am na ay mbër yu doon ñëw di kontak ak ñi nga di kontak ak ñi nga di contact ak ñi nga ba jouru combat bi nu rocceeku bàyyi fa ñi nga dem ànd ak yeeke ma ne mais ñi nga loolu bi nga ko gisee noo def di contact ak yow pendant une semaine ñu toog rek ba benn bis nga dugg ci làmb ji mbër ya nga daan contactal nga gis leen ñu taxaw ci sa camp adverse ñi nga loolu lan na la def ñi nga ne keroog ba ma ko gisee damaa gën a motiver keroog ñi nga dafa daan moog yeeka la njaarim nañ ko bëre kooku su ma demee su ma nee tafaatin fu ma ko ne jaar fa daf fay jaar te bëgg na ko lool kooku papam champion la daf ko yor ci deretam ñoom min Golo ak xale yi waa Géejawaay doon ma ne Père Balla dem na yow ak Père Balla yéen a daan toog émission RTS nekkatu fi Double Less xam nga ni nga mel ak moom nekkatu fi te ngaa ñëw ñëwal ñëwal nga teg xale yi loxo nekk seen ginnaaw mais lii laa doon sóor bi su tey laa doon sóor bi su tey booy ñaŋ su ma neexee booy ñang su ma neexee suba ma dem taxaw ak moom lu ma fa dogal mooy am ci biir kër ga moom booy ñaŋ su ma neexee ma taxaw ak moom mbër mu mu amal komba ma ne ko jiitalal tànk sàngam kii nangam lay def si sa kaw si sa kaw la jëm si wala dalay daw wala dëgg la ci moom wala du dëgg ci moom su ma neexee ma def ko te su ma demee doon may bàyyi ma dugg kër booy ñang mais bi làmb ji jeexee nga dégg ci sa tur. amoo ci mbetteel. non non non ndax nag damaa toll foo xam ne actuellement ci niveau bi ñoom euh, du nu boxee ci benn kii du nu boxee ci benn catégorie. du nu boxee ci benn catégorie. maak moom boxé wuñu ci benn catégorie ndaxte. moom dafa baax trop ba ay papaam baax dëkk Njaay yéen Mayacine Ndiaye maa ngi lay nuyu Mayacine Ndiaye sëñ Modou Habib Ndiaye sama sëriñ na nga ko tuddee Mayacine Ndiaye moo ko jur ñooñu ay mbokkam nanu yu ko jegeñ kooku daal dama mënul wax ci moom ndax tur wi man daal am na tur woo xam ne daal su ma ko déggee du ma ci teg dara lu dul jox la addiya wala lu rafet daal. ma dégg ma dégg ci tamit kii di ñun liñ jàpp mu di papa di ci papa di Reug Reug am kàddu yoo xam ne yëkkati na ko euh, bañ cité la ci ak ku ci mel ni Ousmane Diop ñu yëkkati dañuy daan yéen daal fee ngeen far naka nga jàngatee kàddu yooyu. ba tey loolu foofu. Euh, du ma tudd turam ki ko wax ñëpp ñu ngi koy gis ci net bi te su ma ko tuddee mën na am buzz ndax xam nga fi mu ne actuellement ku tooñ Père mbay Ngoné rek da ngay am buzz waaw waaw waaw waaw ku tooñ Père Mbaye Ngoné su Père Mbaye Ngoné defee sorti da ngay am buzz mais papay Reug Reug jooju wax loolu na wax lu ko neex jërëjëf man de rus naa waa Kaneen man dama rus waa Kaneen ndax ki nu tuddee maamam ki nu tuddee maamam su papakat mësaana ngem bu ba moom na ñuy muur ab sër mu juyaat loo ak papakat nu jox ko ko nu koy wax arab ñang ñu ngi ko tuddee aram kan Baye Ciika Ñang moom moo ko jur Baye Ciika Ñang ndey aram doon daan xëy di ko tëj ci ab néeg suba ba ngoon su papa kan waree bëre. ndey aram ñang baayam moom na ne wax Baye Ciika Ñang keroog bi euh, ba papa kan di dóor mbay géy mu daanu doonoo dem bay bëgg a taxawal julli gi boobu mu ngi nekk ak génn góor gu nekk góor gi coy góor gi coy la nekkal ak benn pël bu ko daan gasal ay ren ñu koy wax Baye Ka ñu nekk ca tool ya ca ngeesu mën a def leen ndànk tuuti ba Papa Kane dóor ko mu daanu ndax lu ko may rek julli gi dina yàqu ñu toog tuuti ab diir rek ñu dégg yuux yi ci biir caaro yi te boobu téléphone amul portable amul ñu ne lan la lan la ñu fëxe ca biir caaro yi ñëw ci bàyyi ci kañang daal koy ne Papa Kane dóor na Mbaye Guèye mu daanu bàyyi ci kañang moomu daan ngemb Papa Kane moo jur ndey aram ñaŋ ndey aram ñaŋ ñu tuddee ko maamu kooku taxaw di bàyyi ci rëg-rëg di ma wax lu ñaaw muy aram ñang maam aram ñang moomu ci boppam moom lañ tuddee ndey aram ñang moomu moo tax dafa dal foo xam ne damay ñaanal waa Kaneen rek maa ngi ñaanal waa Kaneen yëpp sama rakk mi ngi fay sey sama rak mi ngi fay sëy ami ñang bàyyi bala ñang a ko jur mi ngi sëy ak tafa tafa de du ma wax loolu garaay de du ma wax loolu ñoom ñëpp kenn duma ci wax loolu. mais est-ce que jar na lii en fait ci xam ne ay dëkkandoo lañ mbër mi daanu am ay kàddu yu ñaaw ñu ko yëkkati di ko teg ci ñi nga xamante ni ay drapeau lañ biir caare géej rawatina ay drapeau biir Sénégal ku ci mel ni Père Bekaay dem bay tugg dem bay tudd sax dubalees mi fi takkoon jabar yàlla ko yàlla yërëm dem bay tudd sax jabaru euh, yaayu Modou Mbaye soxnay Bekaay mi nga xam ne mu ngi fiy sëy est na loolu. man li ma la mën a wax ci boppam mooy lenn duma wax lu ñaaw. sama làmmiñ wi sëñ Modou Habib Mbacke du ci dégg lu ñaaw waa kër seen Cheikh Darou Rahman duñ ci dégg lu ñaaw surtout la famille Kandji production Kandji production Abdou Kandji du ko dégg Kébé Kandji du ko dégg te Tafa Kandji du jóg ci man te déggoo li ma dama la ne maamu Tafa Kandji mi nga xam ne moo yor boy ñang Tafa Kandji moo yor booy ñang maamam mi ko jur jee Njaay jee Njaay ak Xaadim Njaay ñoo bokk benn baay ñoxor Njaay moo leen jur ñoxor Njaay moo leen jur foofu mënu faa dugal lu ñaaw man de duma leen wax lu ñaaw sëñ boobu daal yàlla na ko yàlla taxawu yàlla na ko yàlla taxawu turam wi màgg na lool man man loolu naqariwu ma li mu ma wax naqariwu ma li mu wax naqariwu ma li nu koy wax moo ma naqari lu tol ne tur wu rëy wu tol noonu nu wax ko ko ba pare di ko dendale ak ay kalbu loolu moo ma naqari man. est-ce que du moom moo cherché loolu parce que moo toog ci plateau bi jël turam ni bu rëgg rek daanoo ñu ñu man dinaa lekk xaj. waaw mais loolu warul tax mu jël tur wa di ko dendale ak ay xaj maa ngi ñaan ñëpp képp koo xam ne yaa ngi suivre people 221 maa ngi lay ñaan ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim su dee ab tiijaan nga maa ngi lay ñaan ci barke sëñ Babacar si man Mansour Balhaw mi su dee cene ba nga dëkk maa ngi lay ñaan ci axlu cekkeen maa ngi lay ñaan ndax dëkk bi yëpp ay waa cene ba nan de car géej gi ñëpp ay waa cene ba nanu bari na fi lool maa ngi leen di ñaan ngeen dimbale ma tur wi ngeen di tudd wu màgg woowu ngeen bañ di ko dendaleeti ak ay kalbu ngeen seet ci man rek ngeen seet ci man waaw waxin la dafa juum rek dafa juum mais amul benn problème amul benn problème waaw man dama ko bëgg damaa bëgg Xaadim Njaay damaa bëgg Alaaji Kan dama leen a bëgg lool damaa bëgg waa Kaneen yàlla mi ma tiim ak yonent bi ak borom Touba xam na ne dama leen a bëgg wallaahi damaa bëgg Xaadim Njaay damaa bëgg Alaaji Kan maa ngi leen di ñaanal bu baax yàlla may leen jàmm ci barki Sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim waaye nag y a logique en le sport en matière de sport y a pas de logique ku bañ sa fen dugal ko ci làmb ku bañ fen dugal ko ci football dinaa ñëwaat ci coow loolu noonu ma ñëw ci làmb ji nga xam ne am na keroog euh, naka nga jàngatee làmb jooju noonu ak coow li fa am entre arbitrage ak CNG. ñoom ñaar ñëpp doonoo mën a bëre ñoom ñaar ñëpp doonoo mën a bëre ñoom ñaar ñëpp man arbitre bi laa yërëm ndax su dee arbitre xamoo làmb rek soo xamul làmb toujours difficulté day am soo xamul làmb arbitre su xamul làmb musul bëree musul pratiquer toujours day am difficulté ci làmb. arbitre xamul làmb est-ce que jotul tamit ñu jël mag yi démb yi nga xam ne ñoo nekkoon ci làmb. ñuy arbitre xam daal di xam chute yi xam action yi. waaw mais arbitre dafa war a xam làmb vaar nag amul ndax su vaar amoon doon arrêté combat bi daw daal di xoolaat kon tey du ñu egsi fii mais dafa sifflé waat bi mu sifflé waatee ñu bëre waat rek rek daan ko. waaw loolu moo indi coow li mais ñoom daal vraiment daal yow rek laa may lii mais sinon wallaay du ma wax waaw maa ngi ñaanal waa Caaroy gi yëpp di ñaanal. Euh, Baye Mor imam Baye Mor dafa dëkk kaneen dëkk ñànge imam Baye Mor ki ma leex léegi Baye Cika Ñang moo daan ngemb papa kan moom moo ko jur Maguette Ñang bàjjanu xale yi depuis Italie maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax fàttewu kenn waa Caaro yëpp maa ngi leen nuyu Ndey Diop bu Seydina Fall depuis Allemagne maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax. Fatou xam naa ni question bi dina la xaw a bett mu mel ni keroog bi loolu amee am na ci xale yu jógee Caare Géej la xaw ba filmeel gaal yi fi nu taxaw filmeel fi gaal yi taxaw gis nga fi gaal yi taxaw noonu xam nga ku ci soobu rek da ngay ñëw ci kër gi mat nanu lu war a mat ay juróomi gaal sama yoon nekk ci xaw ma fu nu jëm xaw ma lan la ñuy wuti xawma ci Moussa Ndoye nañ jëm c'est pas mon problème mais bi ñu ñëwee ba auteur bii sama buntu kër taxaw nañu jubilé nanu saaga nan ma ndey wax nan man lu nekk ci këru àdduna lu ma yekkul amul ma nekk ci kër gi rek taxaw ku ci am fit kay ñoom dem katu géej nanu man dem katu géej laa nanu soobu ñëw dugg ci kër gi fii soriwul soo sooboo rek soo defee ñaari baraas ñetti baraas dangay ñëw dugg ci kër gi nanu soobu ñëw dugg ci kër gi man loolu laa bëgg Khadim Ndiaye nag moo ma menacé mook Alaaji Kan ñoom ñoo ma menacé de mort ils m'ont menacé de mort j'ai déposé une plainte dans le bureau du procureur de la République effectivement ils m'ont menacé Khadim Ndiaye m'a menacé de mort El Hadji Kane m'a menacé de mort ñëw nañu fii def nanu seen acte taxaw nañu ak seen gaal juróomi gaal juróom benn gaal jubilé wax lu nekk il moo menacé de mort ku yaakaar nag ci këru àdduna kooku sama mbokk la ku mu yaakaar rek sama mbokk la kan la yaakaar metti El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf soxnaam du ma tur waaye sama impaañ ko jur ba xaddi tanoor impaañ xaddi tanoor moom moo ko jur xaddi tanoor xaddi la tudd waaye donc koo dàkkantelee ci borom këram muy tanoor ca ndee la tanoor ca maam candeela nga naan ndaw candeela nga naan ndaw buur jokkul siidi maa leen ëpp ay mbokk fuuf sunu dalee sama kaw dinañ tëdd correctionnel boo xam ne dootuñu génn. menaces yooyu mais ñu ngi may mën a maa ngi dox caaro yi kër Baye Mbër Ndiaye kenn mënu ma koo tere kenn xanaa biraan Birane su ko neexee Birane Ndiaye Birane wala Soña su ma nee bul ñëwal sunu kër toogal ma toog mais te foofu loolu dafa jiitu sama juddu Baye Mbër Ndiaye baay mbañaay bajaan baay biraan ñoom baay yuusu ñang ñoom baay yuusu loo baay yuusu loo may papay asan loo lëf loo kooku ñi dëkk dakaar ñoo ko xam bajaan cee yaasin mooy doomu pap manjaay bajaan mooy papay fàllu bajaan mais ñooñu ñoog sama papa ñoo nekkoon su ko pawo ñoo nekkoon port mën naa bàyyi kër googu mais d'après bi loolu amee est-ce que kii di rëg-rëg tamit jot ngeen a déggante. <laughs> ku ma ci am seen numéro dama koy filtre rëg-rëg waxuma dara mais ñoom ñëpp laa filtré seen numéro ba mu des Baye Mandione ba mu des Baye Mandione rek moom moo ci des ak njagandoo yi ak alin Dem njagandooy dama def accident mu boot ma di daw ak man pendant toute une nuit. moom njagandoo yi njagandoo yi leen mën foofu dàq leen a bëre njagandooy yi dafa bëre fii ba jóge fii dem Italie di boxe di box di dóor ay tubaab ñuy daanu moom njagandoo mais pourtant njagandoo yi ak lagros ñoo bokk benn baay njagandoo ak Lac ñoo bokk benn baay Lac ak papandoo yi ñoo bokk ndey ak baay papandoo yi mi ngi bëre ak Coly Faye numéro 2 nan dem toj kër njagandoo yi. ce que tamit mbëru géejawaay yi génn mbëru caare yi tamit génn nañ def ci parce que gis naa commencement combat Sa Thiès ak Reug Reug bi coow amee euh, ñu attaqué Xarim Ndiaye ñoom Ahmed dem ñëpp a génn ba ci xeex. tey yow ñu lay attaqué di la menacé est ce tamit génn wax ci lii. mbëru caaro yi bu nu ma défendre ku ci nekk am naa ak yow jant yóbbu naa Joos Xaadim Njaay numéro 2 mu laxasu su lay topp buddi ko ba ci kaw dóor ci suuf yóbbu naa Issa Pouye mu daan Balla Gaye yóbbu naa ma Mandione mu daan Maam Góor yóbbu naa ko mu daan Yaaram Gueye yóbbu naa ko ba Mbuur loolu gis nga ko mu daan Bazouka sun ma défendre baax na sun ma défendrewul baax na Ahmed Dem moom dégg na li ma wax te loolu laa wax moom laa faral digganteem ak jamtéeri jamtéeri man ak papaam la woon man ak allamaane la woon allamaane mooy papaam man jamtéeri ma ak papaam la ame dem laa faral mais nan ñoom neutre leen yéen ñëpp yéen bëru caaro yi toog leen ngeen seetaan nan ma saaga suñ ma dee dóor sax su ngeen amee yat dóor leen ma mais leer nan man ne suñ ma dee rey man xam naa ne bis bin may rey ci caaro yi su fa fekkee njagandoo yi du ma dee su fa fekkee Baye Mandione du ma dee su fa fekkee waa kër Baye Mbër Ndiaye duma dee à part kooku aw ma ci kenn confiance xanaa njaw njaw njaw ak Sambay njaw ak Sambay non non non non non ñooñu béebu gi gi mais samay doom a ngi foofu nga yéen samay doom ñi ngi foofu nga yéen ñi ngi nga yéen googu ñi ngi nga yéen du ma seen moroom bokkuma ak ñoom yéen ñëpp jóg leen caaro je attaqué moi am naa fi nag ay mbokk fii am naa fi ay mbok te tamit li ma mën a wér li ma mën a assure mooy maa leen ëpp ay mbokk waaw maa leen ëpp ay mbok man bay bayaar manel Codou Ngoy mooy sama maam moo jur latsukaabe joojo mbende yaande waaga sa joor moom moo ko jur damel teeñ may sa tendu joor moo ko jur bokkunu man ak ñoom bokkunu te kay li gën a leer mooy maa ngi nii maa ngi dox ci géej gi maa ngi génn bis bu nekk ma dem kër baay Mbër Ndiaye nan ma dogaale toj oto bi rey ma nan ma rey nu xool nan ma rey rek nu xool lii ma wax ak yow sax wallahi du ma ko wax ak keneen am na yu ma denc yu bëree bëri mbëru caare yi buñ ma défendre suñ ma dee rey nañ ci bokk dallu bu caare dallu dallu mi toll extérieur di wax moom ci boppam le procureur nee na ma yow su la dara dalee gis nañ ko ci net bi wax na soo demee ba dara dal la moom il sera convoqué dañ koy convoqué depuis extérieur mu ñëw ndax li mu wax dagg nan ko mi ngi nu téye waaw keneen ku ci nekk loo wax dagg nan ko mi ngi entre les mains du procureur de la république quand même yow tamit yow xam nga ne li ma am ci ay doomu aadama ñoom amuñu ko maa ñoom bokkuñu public bokkuñu public ay istaar ñooy taxaw di ma woo booba ba léegi ñu ngi may woo ne ma yow na la kenn laal rek fu la neex nag doxal na la kenn laal rek na la kenn laal loolu rek doy na loolu ku mu doyal te ëpp nu ma ay mbokk quand même faal laa sant ñi sëti may sa tendu joor yi xajunu ci ñoom waaw wallaay xajunu ci ñoom sëtu damel teñ may sa tendu joor yi waaw waaw ay mbàkkee nga fi waaw ay ndaw ku ndaa ngi ci ay jolof jolof ñu ngi ci ay tukulóor yu sant wan ñu ngi ci ñoom ñëpp ñu ngi ci su fekkente ne xaj nanu ci ñoom yàlla bu ma gisee borom tubaa mhm. fii rek nañuy waxee mais suñu taxawee devant la barre duñu wax mhm. duñu wax duñu wax barke borom Tuubaa Mbàkke duñu wax billaahi wallaahi wa taala maa ngi leen nuyu di leen gërëm di leen sant gaaw leen waa Caaro yi génn leen ñi nga xam ne nee na nu doon may rey génn leen am naa fi ay mbokk de Yacine Fall bu Baara Gueye waaw <laughs> Yacine Fall bu Baara kooku day Cheikh Ndéla moom moo ko jur Cheikh Fall Ndéla Cheikh Fall Ndéla moo ko jur bàjjanam mooy Yacine Ndéla Baara Gueye mii moom moo koy denc fii ci Orix kooku de sama mbokk la Mati Diagne Fall sama mbokk la de waaw waaw ak waa waaw ñooñ samay mbokk noonu waaw ñoom man waaw ñooñ samay mbokk nan de waaw képp koo xam ne damel teeñ may sa tendu joor bokkoo ci rek doo sama mbokk mais ñii ma la limal samay mbokk nanu ba ci màgget ñang bàjjenu xale yi ak kii ndax aji faat jeng dafa dëkk kaloom jeng bokk ci saale bii ngeen ngoone yugo faal yaasin kor joor jeng ñoom baay moor mi ilimaan nanu ñëw maa ngi leen di xaar nañ ñëw waaw nañ ñëw jërë ngeen jëf ñi nga xam ni xam naa dinaa ko jox mu sant yéen ñi nga xam ne yéen àndoon ak ñun di ñu seetaan Euh, vraiment dinaa ci sànni tuuti kàddu parce que Tungureeru teew ñi nataal mu nekk sunu papa nekk sunu papa ju baax. Euh, vraiment nekk papa joo xamante ni tamit li may wax boo demee géejawaay ñëpp père lañ koy wax. parce que moom présence am ci àdduna nekkatu làmb kese parce que boo leen xoolee émission bi muy def gis-gis du wax sax ci làmb. day wax ci li nga xam ne day yeete mag ñi kilifa yi ñëpp vraiment di ko suivre kilifa diine kilifa aada ñëpp dañ koy suivre kon kii tey présence am. ak image nekkatul ci làmb donte ci làmb la ko ñëpp xamee woon démb donc kon lii defet la Sa Thiès am na ndam nañu ñaan yàlla yeneen combat Reug Reug yi nga xamante ni mooy ñëw yàlla sunu borom defal ko jàmm. jant bu dëgg noppee am nag fu dëgg jógee fu nekk ma toxee fa ma toxu dem sama yoon fu dëgg nekk fu nekk ma sanc fa ma sanc fa waaw fu dëgg nekk ma sanc fa maa ngi lay gërëm bu baax di la sant jërëjëf.